yokk ay kilifaam ñaan yokkaat réew mi ñaan jàmm ak i xéwal li leen yàlla defal it ñu am ci ndam ndax nit ñi dañ leen a yaakaar te yaakaar daa foor kon yaakaar jooju ñu ngi koy ñaan daal bu mu tas mukk yàlla jàppale leen ci ca kaw hiérarchie bi ay kilifaam ba fii moo tax mu ñëwoon nag fii ci mbakki Kajoor ngir siyaare sa réew mi nga xam yaa fi nekkal suñu Mbàkke Kajoor te xam ne boole nga lépp di mag mu ñàkk caaxaan mag mu mës jaar ci àdduna mag moo xamante ni sa dund gépp da ko jàmm yàlla te ku ma indil kaamil ma waat ne ñett ñi gën ci Touba wala juróom ñi wala fukki ñi ci nga ndax lu baax rek nga xam mosoo xam leneen say yi bàyyi ak say ñëpp xam nañ ne kenn gënu la kon loo ñaan yàlla dana ko def te tey ñaari casque yi nga doon te lépp nga doon taalibi sëñ Bamba kon loo ñaan moom man xam naa loolu ndax ba nga ne ma de juróom fukki at yi seetlu moo fi fu mu fi maa soo dogee koor ngatt nga waxuma laa kon farata sunna waxuma laa ngàtt nga kon ci gën ci nga bokk loo ñaan yàlla dana ko def ndax yaa fi sëñ Mbàkke Kajoor di fi suñu amoon Mbàkke Gelongal di imam mi daaru minam te lépp kenn duñ fal imam ci caaxaan imam kuñ ko fal rek mooy zéro faute ci ci nit ku baax kon jërëjëf Mbàkke ñu Cheikh Thioro ngi nii nag ñëw fi nag siyaarale en sëp sët waaye nag ñëwee fi na fi itam kaskat boo xam ne ni dafay war a ñëw ndax mooy député bi nga xamante ni assemblée nationale moom lañu éli pour le département ñëwaat fi nag ki muy àndal di ko défendal guddi bëccëg di ñëpp am ci moom yaakaar ànd ak moom Cheikh muy Alaaji Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye mi nga xam ne moom la yàlla dimbali itam ñu jox ko réew mi xëy na ni ñu ko mën a waxee du loo xam ne dafa leen dañ dañ ko yónnee direct waaye nag lu ñu mën a maslaa nga xam ne lu mu def it ci lu baax dafa mel ni ñoom ñoom ñoo ko yónni ndax dañ ko seq loolu la ñu mën a waxee kon moom casquette bi mu fi ñëwee polyvalent la rek waaw su ko neexee ne dañ maa yónni bu ko neexee ne yónni mi waaye lépp benn la ñoo xamal ne moom mooy lépp daal ñëw na fi nag tàllal loxo tàllal loxo république bi pour nga ñaan ci lépp it ak yaakaar yi suñu borom def leen ko dara ji Cheikhul Khadim jërëjëf Mbacke di ndax ñun ñii di ay gone di déglu ay bandam lu ci bëree bëri ñu xam ci yoonu moom moo ñu ko xamal kon bu ñëwee toog ci seen kanam dinañ yëkkati kàddu yu mel noonu sant leen baax a baax njaboot gi ànd ak ñun ci liñ doon def ànd ànd ceeg ñun ci saahir ànd ceeg ñun ci baati bu dee saahir sëñ Cheikh mi fépp fu ñu mas a fépp fu ñu mas a gestoo dinañ ko gis ci liggéey bi maanaam la depuis 2019 ba léegi sëñ Saliou mii kasaalika naka noonu kon dina baax buñ toogee ci seen kanam ñu seeree leen loolu lépp bi ñu jógee di di di wut li ñu tamit kër gi kenn mënu leen ci kon président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye fay xam nañ kër gi bu baax a baax li ñu seen ci seen victoire te bu soobee yàlla it lépp lu kër gi di yëngu bu soobee yàlla fas yéene nañ ko ànd ak yéen baax a baax a baax di sàkku nag ngeen ñaanal leen xam ne président Bassirou Diomaye ab jullit la mais doom la ci kër gi di taalibe ci kër am na yéene ci Sénégal mais am na yéene ci l'islam am na yéen ci yoonu Serigne Touba bi comme ni ko Serigne Cheikh waxee rek ñëpp xam nañ seen dund gépp ci lislaam ngeen ko jeexal kon boo ko ñaanalee yenn oyof dina oyof te sénégalais yi am nañ yaakaar ci moom yaakaar jooju moo tax ñu jox ko falin wu rafet yi ñu fal kon dañ sàkku ci yéen ngeen ñaanoo ko yenn bi oyof trop trop trop ndax yaakaar ji nit ñi am ci moom rëy goo xamante ni foo ko takk weesu na ko gëm nañ ne boo leen ñaanalee yàlla suñu dina ko gàttandu ba yenn bi oyof lool kon ñu ngi sàkku ngeen ñaanoo ko bu baax a baax a baax ginnaaw bi ñu leen ñaanalee nag suñu borom bàyyi leen fi ngeen yàgg fi lool lool lool te wér loolu daal moo nekkoon kàddu yi mais li ñu waroon wax ci mbokk geeg lépp Serigne Cheikh wax na ko ndax liñ ci xam sax ñun xamuñ ci genn wàll ndax bëri na lu mu wax loo xamante ni tey ji lañ ko door a dégg tey lañ ko xam waaw li nuyu nag suñu doom bàjjen mi solo <laughs> fi sëy ñu koy ñaane yàlla suñu borom yàggal ko fi jërëjëf léegi doon ànd ak yow. ñun ñoom am ci ànd bu moom bu ñëpp doon toppal it ñun duñ toppal. waaw. waaw rek moo moo maa doon def leen ci ndam. Mhm. def leen ci ndam. Mhm. te itam ngeen. xalaati nit ñi ndax nit ñi ñoo leen fi teg kon ngeen dimbali nit ñi xëy na ay ay ay jaar jaar lay doon rek waaye nag ñoo ngi ñaan daal saa borom eh, soppi ko daal gannaaw yéen a ngi ci nag te yéen yéen a ngi ci yoonu soppi ko kon yàlla leen ci la yàlla dimbale defal leen ci ndam saxal leen ci baax waaw eh, dëkk bi nag Eh, eh, di bis bi nee na bisu ñaan la ndax Serigne Touba bi mu ko ci géej gi woor sànn ba wari bisu ñeenteel ba fii la ko yendu si fekk fi koo xam ne kii waajuram la ci sëñ Mbàkke Kajoor ndax moo moo moo bàyyam ñoo bokk benn bàyyi di ab ab xaritam di ab taalibeem waaw mhm. ndax li mu koy jur jur ak li mu koy màngool teew la daa teew dafa xawoon jébbalu ci moom mhm. ndax keroog ba mu jógee ci jàkka ja mhm. sëñ sëñ bi buur ko ba ci néeg mu dal ndax boobu sëñ Mbàkke dafee sëñ Tuubaa dafee def ñeenti néeg te sëñ Mbàkke Kajoor jógee Mbàkke Kajoor di seet si buñ ko nee yegsi na daf ne nañ ma génneel bagage samay bagage yóbbul ma ko ca néeg man dumbay boobee yi mu mënta yi mu mënta tàggool yóbbu ko ci sëñ bi dikkee sëñ Maamoor sa dikkee nuyoo moom mu ne ko nag néeg bii barab yi ñoo fi ne bii na la fi أبوكي فيك ذا شعري بينيك ليلة في أني خيابلي بينيك بوي بوي بوي بوي لما لما أقدم تدارجة سوى للسهلة ما لا يفك سلا قوم السهلة لا يفك سلا فك صح يقول أمس سنجي نيو بس بتعمل بي sunni bi jëm ci wérdam Sëriñ Tuubaa nuyoo ñu fay ko ñu ko xanaa bett naa leen lool de ñu ko ah, Mbàkke seen woon woon wii waxtu de ñu ko damaa dem ba ci yoon saa borom ne ma demal ci sa kilifa aada goo googee bis bis ne tey ci moom la nekk waaw moo lay digal moo lay fekk sëñ Mbàkke ko nga ne lan sëñ bi dellu ci ma ne ko waaw nees di wax ak yàlla ba noppi nga wëlbati ko di di la digal ak a tere mu ne ko sama wax bis ne tey daal yaa may digal yaa may tere waaye nag bala ngeen bala ngeen dem hmm. da la jox sama bopp wax ak yàlla kat. waaw <laughs> waaw waaw keroog la jébbalu jëm. ak mu wéyal loola ba am na fi juróom benn weer si kër gi. Hmm. jëndal la fi naa mi kaamil moom sa ah. sa doo fee jógee dem. ak sa bi muy bi muy bi muy bàyyi ko it. Hmm. maanaam ne la koy tàggoog moom ba mu dikkee sëñ boole koog maam Thierno ne ko na ngeen ko gunge ba yegg këram daal di gaal def ci ay yére yoo xam ne koy ki dafay tàggoo si mu day tàggoo si day tàggoo si waaw demee

ak Faati Xujja ngeen dem ci diw mu natta leen fukki àndaare jàpp ak juróom ngeen defar ko dem ci diw mu defar leen ab gàtt daal ne ko xam nga lu ma jubloo mu ko ah, dee balaase mu ne ko seen bàyyi laa ci bëgg a bégal ndax bii kat damaa dem ca barab ya barsàq fekk fa ñu bare bare yoo xam ne dañoo aajoo ndimbal moom rek laa fa gis moog si sëñ Mor mm. xam ne aajowul ma. ak laaj ko ma ne ko ne la kii mu ne ko nag sopp gu gu la sopp rek. moo lii ak sa. waaw ba bis ba Kajoor bi. waaw ñu ñaax màggal bis ba. ak sa ak sa rek la la la la jërëjëf